jërëjëf jëf mbokk yi ñu bàyyi xel fii ci biir Dakar Net di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd noo bu rafet bi ngeen ànd ak ñun ak lépp lu muy daal di doxee. alors où que vous soyez dans le Sénégal qui que vous soyez eh, bonsoir ou bonjour ça dépend de quel côté du globe vous trouvez ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax et bienvenue dans votre nouvelle émission li ma weesu li ma weesu di émission boo xam ni dina xaw wuuteek wuuteeg émission yi fi daan jaar. lu tax dina xaw a wuuteeg émission yi fi daan jaar comme tour bi ni mu ko waxee li ma weesu. tey daral ci benn daanaan boo xam ni dinañ waxtaan ak moom ngir mu wax ñu mooy kan naam xam nañ ko ba noppi mais am nañu nekk ci ginnaawam loo xam ni xawuma ko te yéen it xamu leen ko. raison pour laquelle ñu daal di def ci lu ay jéego ba daal di ko indi fii ci biir li nga ñi bàyyi xel ñu leen di fàttali encore une fois que ni tey. invité bu mat invité nañu am tey invité boo xam ni ndaanaan invité boo xam ni euh, bu waxee di ngeen xam ni lépp nu mu mës a dugg lu ne am na lu ko ci dugal tey nag dañuy waxtaan ak moom ñu bàyyi ko mu nuyonteeg téléspectateur wala internet mbokku Dakar ne yi koy seetaan kooku mooy grand Latir Mbaye Latir salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw bisimilah rahmaani rahim. salaam salaam salaam di jox ñëpp seen wàccuwaay. Mhm. di jox ñëpp seen yéeguwaay. di ñaanal Sénégal jàmm sax fi. Mhm. dakk kilifa diine yi suñu borom may leen wér-gu-yaram gudd fa nag wér-gu-yaram ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir suuf suñu borom teeru leen ci àjjana yi gën a kawe defal ko mbooloom jullit bu nekk ci biir suuf. amiin ñi nekk ci biir hôpitaux yi suñu borom fëgg seeni bopp ñu dellu seen activité. amiin ñi nga xamante ne ñoo nekk nattu nekk ci biir kaso yàlla na suñu borom teggil leen nattu yi. ba ku ci nekk dellu say activité. amiin waaw Latir mbay la. di doomu Grand Dakar. Mhm. lu mu dund loo xamante ni sax xajul si bi xajul beneen plateau. Mhm. mais ci kàttanu yàlla euh, avec maanaam lu ñu dund. Mm-hmm. lu wees. Mm-hmm. lu wees lu ñu dund. Mm-hmm. kooku ba ma ci wooyee dama ciy sawar. Euh, loolu moo waral ñu daal di la daral ci plateau bi nga xam ni moo di li ma weesu. fa seeni waxtaan ak yow waxtaan bu am solo waaye it waxtaan bu dal boo xam ni di nga mën a exprimer wu ba Sénégalais xam Latir li mu weesu. di euh, ñuy njëkk laaj Latir avant yu tàmbali mooy est-ce que Latir jaar na école jàng na école. waaw ah, Latir Mbaye jaar naa école. ban école jàng naa bi nekk tout tànk euh, bi nekk Dakar kii. école ngelaw wala. non non man point deux laa jàngee. mais mais maa ngi defee sixième kii Dakar en face en face Mouride. d' accord euh, Latir kon def na ay études mu mel ni euh, Latir waaye juróom bu góor da ko bëgg lool te waaye juróom bu góor mën na ni tapissier la. Hmm. bi Latir nekkee tout tànk daa mel nii waaye juróom bu góor daan na jël laati di ko yóbbu atelier mu mel ni loolu neex ko woon atelier boobu noonu ba tax la Latir bari na ci lu mu dugg ci ci ci biir atelier boobu la daan di daw ak di ñëw eh, góor gi di yóbbu ci atelier boobu la moo tax bëggoo foon nekk. waaw boo gisee du ma ne bëgg naa fa nekk du ma ne bëgguma foon nekk mais dafa am loo xamante ne ci loxo suñu boroom la nekk. Mm-hmm. sama papa mënul yor atelier. yor ay doomu jàmbur yoo xamante ne da leen ngi jàngal métier man bu gëstoo du ma gis te moom bu sañoon saa bu gëstoo daf may gis. mais yàlla ñu jox day jaam ak pexeem yàlla ak dogalam amaana suñu borom moom moo tudd pour ma jaar ci lii nii. waaw. mu mel ni euh, way sa way jur bu góor ak sa way jur bu jigéen dañoo teel a teqali ko. waaw loolu sama papa am na lu ma ci raconté mais du lépp sama yaay tamit am na lu ma ci wax mais du lépp. Eh, eh, bi ngay nekk tout tànk est-ce loolu aussi xawoon na la perturbé ba taxaw nga dugg ci yu mel. waaw dama naan sax man tey tey tey di euh, su ma yàqoo mun naa la wax loolu moo ma yàq. Mhm. parce que man sama papa euh, def na armée ba yor brevet militaire am commando la woon. Mhm. bat para mhm. mais maanaam mu nga xamanteeg sama yaay Casamance mooy jamono jooju gars yi di dem di guerre rek di def affaire yooyu noonu. boobu mu nga xamanteeg moom Casamance. ba mu xamante moom Casamance maanaam mu jël ko ci ci ci farata yu wóor indi ko Dakar mais mënu ma wax histoire bi yëpp parce que am na loo xamante ne sama vie privée la am na loo xamante ne sama papa ko bokkal am lu ma bokk ak sama yaay am loo xamante ni ñun ñett ñoo ko bokk waaw eh, mu mel nii eh, séparation boobu ñu séparé wu lu bari moo la ko yóbbee waaw séparation boobu day parce que après sama yaay moom làqkat la te làqkat maanaam ñoom bu ñu màttee day dagg te lépp lu ñuy màtt muy dagg maanaam ñoom dañuy taxaw seen kaw région yow léegi yow muy góor boo amul muñ tuuti rek waaw day tax nga may ko baat léegi ci biir may baat boobu noonu maanaam may sànniwaat encore parents yi euh, message boo xamante ni tey di euh, sa jabar même boo koy fase waaye xoolal surtout tànk yi parce que tey moom bu mënul moom bu mënul jël responsabilité am yow yow yow doo mës mën a jël responsabilité boobu noonu. Mm-hmm. parce que dangay xool fii Grand Dakar. Mm-hmm. du ma ne Grand Dakar sax mais maanaam Afrique. Mm-hmm. da ngay gis ndeysaan euh, papa ak yaay. trois trois doom wala quatre doom wala cinq doom ci benn néeg. comprendre léegi bu ñu demee ba nga xamante ne maanaam sa tànk dëgg maanaam tey maanaam trois doom quatre doom di fanaan ak ñoom. seen tànk bu dëgëree ba ñu commencé dox. abandonné nañ abandonné nañ la. Mhm. parce que mënatuñ si dara. Mhm. imagine toi nga nekk locataire nga nekk locataire di fay ndox di fay courant dépense war la. Mhm. mais doo tal say doom. doo tal say doom. looloo waral taf taf man la sumay après fréquentation après fréquentation yaa ma gën a xam. da ngay waye di. laataa ñu dugg ci fréquentation. Eh, Latir way juróom bu góor dafa bëgg lool. lool lool lool kenn du laal Latir. Eh, ñu gis ni paa bi def na armée. waaye daa mel ni dafa toppoon ci di ko neex maanaam dafa bëggoon doomam ba ragal la ko wax du sax ragal mais bëggeel la cofeel euh, ba ba ragaloon na ko teg ci ci ci yoon ba ba dugg dugg ci yenn yi mu mel ni neen ma sa yaay ba battante la bañkat la mhm. amaana sa xëy na bu lay yaroon yu mel nii du am mhm. donc différence boobu lan moo ci mën a nettali entre sa yaay bu lay yaroon ak paa bi mu lay yaree ak ci li nga dugg waaw xam nga am nañu seen papa yar kenn déggul si ñoom dara am na ñu seen yaay yar nga dégg si ñoom dara mooy lu ma la wax rek amaana dafa loo xam ne dafay jóge si suñu borom muy lan dessin kenn mënu si dara kenn mënu ko mucc mais bu jeexee jeex na parce que nit ki yow yaay jeexal loolu sabab lu ko suñu borom jàppale la waaw Latir mu mel ni dafa doxawee ku taxawaay ambassadeur ci li mu nekkoon démb mhm. ñu si nekk tey Latir bëgg leen ci dindi mhm. est-ce que Latir mi ngi def ay jéego di leen seeti di waxtaan ak ñoom waaw depuis xam nga dafa am feebaru Covid bi. Mhm. kon doo mën a seeti kenn. Mhm. te demoon nañu ba ne maanaam nii seet si détenu yi foog ñu nekk kenn koo xamante ni cinq parents lay doon. Mhm. te man boo gisee du ma jug di mën a seeti nit soo seetee paate Ibra mer. ñun loolu la ñuy dund quoi. boo seetee Ibra paate mer. kon léegi mun naa leen bañ a seeti teewul man ma nekkal leen fii. di leen teewal di leen teewal. lu leen naqari naqari ma. lu ñu bëgg mu egg ci àdduna mu egg ci àdduna mm. waaw parce que man sama page YouTube maa ngi onze mille et quelques mm-hmm. kon du lu ndaw mm-hmm. car macha allah yal na yàlla gën ko augmenté yokk maanaam 33 prison yëpp xaw ma 34 prison yëpp presque onze onze onze onze prison maa ngi déggante ak ñoom yaa ngi déggante ak ñoom waaw euh, Latir nekkoon ci yoon boo xam ni xëy na tey du ma ñuy réccu ko ndax lu passé la mm-hmm. tey ñi si nekk lan nga leen a wax waaw ñi ci nekk lu ma leen mën a wax mais commençant surtout nag les parent waaw mhm. ah, parce que lépp foofu la. Mhm. Euh, nee nañu garab buy màgg boo ko boo ko teelul jubbante. Mhm. bu demee ba nekk mat garab. mënatoo ko jubbante. déedéet kon encore di lancer encore message ñi nga xamante ne ñooy parent xale yi. ñu teel a jug. si ñi nga xamante ne ñooy jeunesse bi. ku ci nekk na nga en l'œil sa doom. waaw ah, di xool ndax kii. bu jàngee ba wàcc dala koy jaral sax yenn saa yi ngay dem école di laaj sax maître am ndax jàng si na wala jàng si mm-hmm, mm-hmm. loolu c'est très important mm-hmm. te pourtant duñ ko def ah di lancer appel message pour ñooñu nga xamante ne ñooy parents parents yi daal euh, laajte kan mooy lëmbaam waaw lëmbaam nag ndeysaan boo ko déggee waaw benn waaju doyoon waar la bu terrible bu maîtriser woon waxuma la Grand Dakar mais dakaar da ko maîtriser woon waaw te lëmbaam boobu maanaam man mun naa wax euh, ba may doon booy. Mm-hmm. dañ doon ànd ci yu bëree bari bari bari mm-hmm. loolu yàgg na. Mm-hmm. li may wax leer na ñu bari waaw. mu mel ni bi ngay bi ngay jógee si atelier papa ñu dellu tuuti si ginnaaw eh, bi nga daan fàq di daw daan nga fréquenté ku mel ni la maam. mais man mi dem ba ne la ñooy toog di def lépp kañ. ak man ak ñoom ñoo doon toog. ku ci mel ni ak double moteur. mooy mooy double moteur lambaam moom mooy double moteur. ok lambaam mooy double lambaam mooy alliance double moteur. d'accord. Mm. Latir senegal yu bëri xamul ni Latir fils unique la. waaw duma du ma fils nag. Mhm. waaw mais man maay sama taaw papa ak yaay. Mhm. maay sama taaw papa di sama taaw yaay. Mhm. am naa ay raq yu topp ci man. sama raq bi nga xamante ne moo topp ci man. man ak moom ñoo bokk ndey ak baay. mais sama yeneen raq yi yaay lañ bokk. mais tey jii man dama ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. man xooluma doomu yaay xooluma doomu baay. ndey ak baay laa bokkal ñëpp. Mm. gëj nga Casamance. chaque tabaski ci kàttanu yàlla fa laay tabaski depuis ma sorti depuis ma génn biir kaso. waaw mhm. ah, parce que dama doon toog ay lan ay dix ans quinze ans du ma gis sama yaay. Mhm. waaw parce que man maanaam mun naa la wax man man ma xool quatre-vingt-dix-huit laa njëkk a dugg kaso. forbe quatre-vingt-dix-huit. Mhm. forbe. ñu tëj ma deux ans ma nekk booy bu ndaw. parce que lu tax ñu tëj ma deux ans. benn benn benn affaire agression la woon. Mhm. bu amoon ci Bourguiba bi. Mhm. léegi comme que mun comme que Latir mbay dafa siw te ki ñu agressé ba mu ba mu ba maanaam ba ki ko agressé duggee Grand Dakar. Mhm. moom maanaam da doon laaj ndax ñiy agressé fii nii fan lañ dëkk am ku ko ne ñoom Latir mbay la. léegi ñoom Latir Mbaye boobu noonu moom ci la dem def plainte. def ñoom Latir mbay policiers yi xamuñu ñoom Latir Mbaye Latir Mbaye lañ xam. ñu bind Latir Mbaye. ok loolu moo la njëkk dugal. loolu moo ma njëkk dugal prison. te laale woo taxewoo. mukk bi nga duggee prison daa mel ni bi nga génnee da nga génn ak yi no ba may génn sama première kaso boobu ba tey xaw ma dara. boobu damaa génnaat. boobu ñaata at nga am. boobu ma xool euh, boobu amaguma amaguma kii. amaguma 30 ans rek su ma juumlu. ok nga génne waaw bi ma génnee. Mm-hmm. bi ma génnee comme d'habitude rek xam nga ni ñu koy waxatee waaye euh, mooy comme li ma la waxoon éducation de base. Mm-hmm. dafa am solo trop trop trop trop trop trop. parce que tey jii man mun naa wax euh, damay balaa dara damay baalu sama papa ak di baalu sama yaay ak. di baalu askan bi àq. di baalu Sénégal àq. di wax képp koo xamante ni man mosoon naa jël alalam. maa ngi lay talal loxo man la ci mbay di la wax nga baal ma àq xam ni affaire de jeunesse la woon. mais man gën naa ni jeex na parce que yàlla suñu borom jeexal na ko te man maa ngi koy jéem a jeexal parce que car macha allah mu ñëwee ba léegi li nga xamante ni loolu laa décidé muy sama objectif muy dëggal jubal leeral maa ngi ci maa ngi si. di tàllal ñépp loxo ñu ñaanal ma ma sax si dàq. Mm-hmm. laati euh, def benn jeu. Mm-hmm. am dama bëgg nga gëmm. Mm-hmm. dama bëgg nga gëmm concentré bu baax. dafa am lu ma la dafa am lu ma la wax. foog ma gëmm quoi. waaw concentré bu baax. dama bëgg nga xoolal ma caméra bi nga gëmm concentré bu baax. Euh, juste rek pour vous rappeler que ni ñu ngi seen émission li ma weesu dafa am benn surprise boo xam ni dañ ko indil suñu ganu gi tey te xam naa ni eh, buñ ko indee dina dina doon loolu lu ko gënal tey ñu xool Latir bu gisee loolu lan lay réagir donc yes damay daal déplacé wu tuuti am lu ma jël rek daal ko indil si ça ne te dérange euh, mooy ki ñu dalal tey di Latir Mbaye dafa am lu ñu ko indil luñ ko war a jox. daa ci teel nii. macha allah dama bëgg nga dajjil ma ko dajjil ma ko ci plateau bi. Euh, euh, euh, yaa sama réalisateur dama bëgg nga jëlal ma ko mu dajjil ko boppam. manoon naa ko jàppale mais du ma ko jàppale seen émission bi ma gees nag à chaque fois. war kii kan la. kii mooy sama yaay kii sama yaay la kii dama koy ñaanal suñu borom wéral ay cëram guddal fanam sàmbal ko njaboot gi. may ko dooley biir ak biti ci barke Seydina Mouhamed sallallahu taala wa sallam oui franchement parler bett ngeen man nag bark sëñ Fallou parce que lii moo ma gënal man ay milliards mhm. waaw man lii daf ma gënal ay milliards parce que aw ma kenn ku dul sama yaay waaw jamono ji may foo may foo di jëlantu alalu jàmbur jamono ji may foo di jëlantu alalu jàmbur sama yaay daf ma mosoo woo ne ma bis boo ma joxee bis boo ma joxee xaalis boo xamante ne lew la baalu ma na ko. waaw ah, man moo tax musuma jël alal jàmbur am xaalis di ci xalaat sama yaay. franchement parler. te ba ma juddoo ba léegi musuma liggéey tamit jox sama yaay. kon il est temps balaa moo gaañu maam ngërëmam. yàlla na fi yàgg nga teral ko. allahumma amiin. yàlla na fi yàgg. waaw lool suñu yaay ji yaay booy dese nga ba ci kanam. yàlla na fi yàgg lool. balaa ci teral la. Eh, eh, ñu nii dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko defar uniquement pour yow. macha allah ndax gis nañ ni Latir yaayam ku ku yaayam bëgg la. Mm-hmm. gis nañ ni Latir également ku bëgg yaayam la. Mm-hmm. lii lii mu la def bi ñu ko gisee pour sa première réaction nu mu la def. waaw lii sama xel sama sama xol dafa tooy ah sama xol dafa tooy parce que nit amul lenn lu dul yaayam yaay dafa foor ci xol trop trop trop trop trop trop sax. Mm-hmm. te moom mu ngi ba Casamance nag. mais lépp même ba ci feebar bu ndaw moom day nekk Casamance yëg ni man feebar naa. est waaw dama dama remarqué loolu. Mhm. man maanaam saa yu may jàmbat tawat sax sama yaay day jékki-jékki rek woote téléphone ne ma Ablaye mbaa jàmm. Mhm. ma ne ko waaye yaay jàmm kañ kon nga xam ne kooku moom mu ngi may yëg. Mhm. te man it maa ngi koy yëg. franchement. Euh, euh, mu mel ni lii fooguloo ko woon. waaw ah, lii moom fooguma ma ko woon yaakaaru ko woon franchement parler tamit quoi parce que borom Touba. billaay wallaay li li DJ Axma moo na ko jox. oui oui oui DJ Axma. ànd ci waa Dakar net yëpp. Mm, mm. ñoo la bëgg lii tey ci émission di leen wax ñoom it yal na leen suñu borom taxaw di leen dénk sëñ Fallou Mbacke. amiin lépp loo leen bëgg seen kaw biir liggéey yal na leen ko suñu borom jox. amiin ci barke Seydina Mouhamed sallallahu taala wa salaam. barke borom ma tegal la ko ñu continuer waxtaan bi. bisimilah ma jox ko euh, saa teel ko. Atia, juste pour vous rappeler que nous sommes en direct sur Dakarnet euh, dans votre émission li ma weesu tey comme ni ma leen ko waxee ñu dalal daanaan gu matan dalal Latir bi nga nekkee ci prison bi rek récemment avant ngay génn sa waajur bu góor doon na la seet si bay ba defoon choc ba oto mbëkkoon ko ba tànk bi dam bi nga yéegee loolu ci biir prison bi lu mu la def. mais loolu kan moo leen ko wax. <laughs> Hmm? loolu daal. Eh, bi nga jegee loolu lu mu def xam nga Dakar Net ak Axma moom day def ay investigation moom day wër bu yaakaar ni damaa ñëw rek invité la dama wër ba am ay gëstu ci yow bi nga yëgee ni góor gi mi ngi lay seet si ba oto mbëkk ko ci yoon bi ba tànk bi damm choc boobu lu mu def ci biir loolu choqué na ma trop mais nit da nangu lu yàlla dogal te sam papa tamit ku nangu dogal la mhm. car rapide moo ko mbëkk ba pare daw mhm. car rapide moo ko mbëkk ba pare daw mhm. kon damay delluwaat encore di maanaam di jéggaluwaat ñi nga xamante ne ñooy parent détenus yi mm-hmm. parce que man comme que man maay de des détenus mm-hmm. kon lépp loo xamante ne bépp détenu mm-hmm. man maay jël jéggalu bi di ko jéggalu ñi nga xamante ne ñooy suñu parents yi nga xamante ne ñooñ doon seet si biir kaso mu ngi leen di ñaanal yal na yàlla wéral seen cër guddal seen fan sàmbal leen njaboot gi di leen wax ñu baal ñu àq parce que sa doom mbaa sa jarbaat mbaa sa jëkkër bu nekkee biir prison yow maanaam jaaxle bi ngay jaaxle xam nga waaw jaaxle bi ngay jaaxle ba tax na yow da ngay gis ñii dañuy jóge ba tëngee mhm. ñii di jóge ba ndar mhm. pour ñëw prison cent mètres pour xool seen doom wala seen jabar mhm. wala seen wala wala wala seen jëkkër kon metti na trop trop trop kon ñooñu balaa dara dañ leen dama leen di masawu coono waaw di leen wax ni bu ñu tàyyi parce que maanaam deret dafa foor te am na loo xamante ni maanaam tey jii euh, ki la gën a mën a génn ki gën a mën a génn ba pare delluwaat ci biir mooy ki nga xamante ni maanaam dafa nekk ci biir ñu négliger ko kooku bu génnee day rakkaaju mais yow mi nekk ci biir nga xool fi nga dëkk nu mu soree soit ba fi nga dëkk su mu jegee sax mais dafa am benn affaire boo xamante ni defet la maanaam defet bi mooy yow munoo nekk ci town bi di lëmbee di def ay affaire di jël alal jàmbur di agresser di dajji te buñ la yóbbee prison amoo amoo xaalis boo jëlee avocat mais booy nañ delloo si seen xel kon ñu bàyyi kon nañ bàyyi pour muy leer xam nga ñan ñoo war a nekk bandi doomu milliardaires yi ñoo war a nekk bandi mais ñun baadoole yi bàyyi ñun bandi arrangé wuñu waruñu ko doon waruñu ko jéem a doon parce que amuñu moyen boobu noonu waaw fii da xool doomu baadoolo bi moo fi sàcc pomme bi ter ñu yóbbu ko kaso doomu milliardaire bi rey nit trois mois ñu ne la bàyyi nañ ko mais kon dañuy jël lépp rek teg ko ci loxo suñu borom dëgg bu wér mm-hmm. oui euh, Ngaaka Blindé mu mm-hmm. mel ni fekk na la ci biir mm-hmm. bi mu la fekkee ci biir bi mu génnee dafa def son tudd la ci kon yaakaar naa ne Latir am na lu rëy lu mu defal Ngaaka sa relation ak Ngaaka Blindé ci biir prison bi nu mu demee euh, sama relation ak Ngaaka de ni mu demee moom la demee kon ñeneen ñi rek man maanaam dama dama dama yàgg ci kaso bi. man dama yàgg ci kaso bi maanaam euh, boo déggee ñu naan sept décembre sept décembre maanaam sept décembre sax man mën naa leen man maanaam maa leen ko njëkkoon maa leen njëkk ci kaso bi. waaw mais dafa am ñuy jox néeg ak ñu jul jox néeg boo mënul nekk espion. mënoo mhm. yor néeg. Mhm. te man jomm naa yor néeg ba pare naan damay superviser nit. te sama problème man doy ma mbubb ak tubéy mais dafa am ñoo xamante ni dañuy nekk foofu noonu di maanaam genre genre genre indicateur la ñuy doon. ci biir ci biir ci biir ci biir kaso bi. te ñooñu ñoom ñooy chaque jour ñoom ñooy créer feu. Mhm. parce que tey ji mun naa la teel benn rankin. Mhm. maam sam benn xaritu garde. Mhm. ma bàyyi la yow fi ngay tëdd. ma def fa ñaari paquetu ba dem sama xaritu garde bi ne ko waaye sa waaye dem ba léegi gaañ day yendoo di tux. ok léegi kooku noonu boo nekk ay élément ñëw sa ngay ñaay directement la jëm moom moo ko génneew ci. Mm-hmm. ok fekk ñoom ñoo créé loolu. ok ki ñuy fay pour mu garder la. Mm-hmm. moom bu mënatul garde bu mu fay keneen mu koy garder la. déedéet kaso saa bu tojee rek loolu moo ko toj. donc yaa ngi koy dégg mutinerie bi campé naa la. Mm-hmm. ay affaire da xaw ma espion bi doon kii xaw ma lan ak lan. mais loolu la. bi la fekkee ci biir prison bi. waaw man ma ngaa ko fekkee ci biir prison bi maanaam dama ko dalal kenn nu may dalalee ñëpp man du ma seede chambre du ma homme de chambre. ok mais dama yàgg ci néeg bi. njëkk fa seede chambre njëkk fa homme ok. damay déglu baax a baax ba ngaa ko ñëwee waaw dama ñëw gis naa xam naa ne ngaaka la ma bàyyi ko ba mu waxtaan ak gars yi mu ñëw toog ma ne ko waaw sama waa ji lan mu expliquer ay problème am mais instant bu noonu jaaxale na tiit na parce que xamul loolu. xamu ko ndeysaan. léegi man mi ko xam fële que ma accueillir ko tette ko dalal ko mu dal. Mhm. laa ko ne eh, bul jooy man mi joxe def naa fi six ans mu xoolaat ma ma ne ko def naa fi six ans ba léegi man la su ma gis jant yow sa problème du problème mu dara. da ngay ñibbi bientôt dalal sa xel. Hmm. xam nga ci lañu commencé nag. Hmm. muy ñëw xam nga ñuy toog bëggee. Hmm. bët waaw yàlla nu mu ko suturaale mu dem yoonam. d' accord ñaata sa sa prison bu mu ñaata at nga def ci biir. sama prison bii mujj nii. dix ans lañ ma tëjoon. dix ans waaw ma def six ans ñu baal ma grâce. nan euh, nan la mujj jàppee. man mooy li may wax rek. Euh, sama problème bii passé man li ñu ma tëjee dix ans waruñu ma ko tëjee dix ans. mais comme li may wax rek. justice dafa am sostis am ak dundu gis mën nga ma firi ñett ak dundu gis mën nga ko firil est-ce que duma la bàyyi nga gën ko leeralal Sénégalais la mooy justice très bien justice mooy mooy maanaam ki lay attee ngir justice mu juste xam ne moom mi lim lay attee nii loolu ñëpp ànd nañ ci mhm. injustice mooy maanaam yow defoo dara yëgoo tinoo ñu bëgg la juger comme ku def. mooy justice. très bien léegi dund gis. mooy maanaam yow li ngay dund nii man li may dund nii ku nekk am na looy dund la métti. ok loolooy dund gis. ok maanaam nga nekk ci biir war ko dund. ok waaw c'est dur. lan la la tëjee woon mujj bi. ban bii nii. dix ans lañ ma tëjoon. ma ni lan lan la jàppee woon. voilà lan lañ jàppoon dama amoon benn problème bu ñuy wax euh, problème ma kenn ñoo amoon problème benn policier bu ñuy wax Matar Diop alliance maxa mhm. man ak moom dañu benn genre gitangaas. Mhm. maanaam dañu problème. Mhm. léegi problème am problème bi bi problème bi li ko indi yëpp affaire de jigéen la. Mhm. waaw parce que dafa am benn euh, yaay booy boo xamante ne man ak moom ñoo nekk. téléphone am sonné. comprendre nga. ma yee ko ne koy am na ku lay woore mu jug gis appel bi tëddaat. appel bi en sonné ma décorosé. moom ci boppam xam naa de foogante ne ku jigéen ki moo décroché. mu wax saaga. ma ne ko mais sa waa ji yow xam nga ku décroché sa nga saaga mu ne ma kooka la ma ne ko man na Latir Mbay borom xar bi gis na xam xaram utul beneen nii mu mu kii kërëb kërëb ma saaga ko coupé. léegi nag ranking di daw. ranking di daw. ba benn jour am ñoo xamante ne dañoo këf saagu jàmbur. damay damay wax li nga xam te noonu la deme uh-huh. am ñu këf saagu jàmbur. Uh-huh. te fu ñu ko këfee sama koñ la. te du ma nangu man nit jóge secteur. ñëw di def dara sama koñ loolu sama defet la man. déedéet sa defet. kon su boobaa du ma jar dara. dana nga weex dugub voilà. léegi bañ man ñoom ñoom ñoom maanaam ba ñuy romb sama koñ dama def benn maanaam xuuxal booy bi yoroon saag bi rek laay laay visé man. Uh-huh. xam nga léegi ni mu ñëwee ma ne ko taral nangu saag bi léegi bugguma ko bàyyi gars yi di ko gaañ. man dama nangu saag bi rek. bàyyi ko mu romb. léegi ñi ko doon dàq di ñëw man leen kat moom moom saak bi ñoom ñëpp ñuy xoolante man leen mais ana borom saag bi léegi am ci biir ñu naan waaye ñoom ñëpp ànd ñoom ñëpp ma gis sama bopp réagir nag. saaga. xam nga jékki-jékki rek am benn xeer bu ma dal ma xëm police laa ximili ko. ak ah bon léegi bu ma ximili police ma xam ne ma nag li waaye doon jaay nag tey mu lamb xam nga. ne seede poche yi pour mu génne ma seede poche bi génne ma mu dóor ma mbéj fekk ñu ngi ma monate man tam ma dóor ko mbéj ñu xaw a kërti kërti noonu dugalaat ma ci biir violon bi mhm. mu ne ma moom en personnel ni la ko waxee boo demee dinañ la tëj dix ans moom ci boppam moom en personne ne ma booy dem ñu lay tëj dix ans ma ne ko yow doo yàlla doo yonent bi boo dee yàlla tawal xeer mu defeere ma appelle ma association des malfaiteurs mhm. détention arme blanche ah association des malfaiteurs détention arme blanche xaw ma usage de xaw ma lan. Mhm. affaire yooyu noonu il argument teg mais association de malfaiteurs benn nit mun na def association des malfaiteurs non non non ma dem kaso toog fa ay trois ans dew ma enquête looloo waraloon suñu grève bi nga doon dégg ne mutinerie bi. d'accord ñu woon pour daw. Mhm. grève ñu woon pour violence. Mhm. dañoo grève ngir suñu àq ak suñu yeleef muy maanaam kañ la ñuy dem tribunal kañ lañ ñuy woo ñun loolu lañ doon grève suñu droit lañ nekkoon bañ nañ ko ba ñu ñu doon grève yëpp bandeau rouge lañ taxoon d'accord ba pare dina leen carrément non à la violence ci biir ci biir ok mais après boo gisee affaire yi ëpp doole mooy maanaam dafa am ñoo xamante ne ayuñu cour bokkoon ñoom it si si grève bi parce que ku ci nekk yow mi bokkul cour amoon droit génn cour mun nga grève mais da ngay toog sa néeg hmm. léegi nag ñoom jaaxle nañu parce que léegi gis nañu xaafu kaso bi nit yëpp génn nañu. comprendre léegi ñoom tiit ak paniqué moo waral bal tàq. ok que di may déglu baax a baax. ak paniqué moo waral bal tàq lakoro masel tàq. ci biir prison ah, parce que c'est obligatoire parce que ñoom tiit nañu affolé nañu. Mm-hmm. si lañu colomotive gars yi ne gars yi dañoo bëggoon daw. gars yi nag ma xamal na leen nag leen nag tey. gis na 100 mètres carrés yi bu ñu bëggoon daw dañuy xëy suba duñ fa gis kenn. lu tax garde yi fa nekk matuñu cent personnes. te biir kaso bi am nañ ay deux cent deux mille cinq cent personnes. ah bon ah da ngay laajte deux mille cinq cent personnes ak cent cent cent cent personnes ñooñu wër tamit. mënuñu mënuñu seen ngor moo leen fa téye. mënuñu leen mënuñu leen seen ngor moo leen fa téye. d'accord xamal leen gis nga kaso ku koy daw ku ne mooy ki ñuy xoj. loolu tamit foog gars yi tamit di ci bàyyi xel. nit bu demee bay daw kaso rek xamal ne man la su may xoj nañ ko ci put. ok maanaam garde yi ñu ko jàmm. metti na ci côté nga fu mu tourné. bu ñëpp di maye comme ça yenn saa yi terrain day am football yow léegi dangay ñëw ñu bind la ñu effacé la. xam nga genre genre torture. xam nga lu tax loolu. loolu garde yee koy def ci biir. mais pourquoi pas ñoom la am na garde yoo xamante ni dañ lay gis neexoo leen ñu créé lay problème am na ñoo xamante ni man la sumaay dañuy nekk ak yow mel ni duñu ay garde àdduna moo tëree noonu. Mm-hmm. bu ñuy baaxee ñii ñu ngi dëngal. Mm-hmm. waaw mais en tout cas feu boo fa dégg maanaam wala wala attentat boo fa dégg rek xamal ni. am na garde yu créé loolu mais du doon détenu parce que ki ngay yee six heures du matin mu nangul la yeewu six heures du matin nga ne ko sukkal ma appel la mu sukk nga appel ko kon kooku yaakaar naa mu ngi muñ am déet six heures du matin laa la wax mu ngi ki ngay génnee ñëpp ñëpp la ñuy génnee ñëpp ba pare ñëpp tout le monde en terre sukk mun leen buñ leen di génnee nan la leen di yeewee waaw nit ñuy yeewee fëgg bunt la ok affaire boobu moo gën a fort sax sonnerie église buñ téyee bunt bi pour nga yeewu buñ ko nee gën gën gën gën gën mais du doon garde moo koy def garde bi moom bu xasee boobu benn chef de chambre bi laa naan fëggal appel. d'accord léegi chef de chambre bu ko defee mooy croisé bi nga xamante ne la ñuy tëjee bunt bi. Mhm. moom lay téye nag këng këng këng këng këng këng këng këng bu ko defee képp ku doon nelaw da ngay yeewu ndax bëri boobu noonu. ok ba pare kaay ma xamal leen yéen ñi nga xamante ne yéen a mujjee génn boo leen daanoo fas bu fekkente ne garde bi yéen daf leen yéen da leen di baraake yóbbu leen pos sotti leen ndox maanaam humiliation si biir say ah oui est-ce que léegi dund yooyu yëpp nga koy dund biir kaso nee naa léegi man li ma dund biir kaso su ma ko nettalee Sénégal tas ndaxte lan nga dund biir kaso lu loo xam ni boo ko waxee sénégalais yi ñëpp dinañ taf seen loxo tey waaw xam nga benn rek mm-hmm. waaw xam nga ndeysaan euh, loo gis rek dafa am lu ko waral mm-hmm. te lu sotti am borom mm-hmm. euh, man dafa am loo xamante ni tey ji mënuma taxaw comme nii di ko wax mais bis bu wax jotee dinaa ko wax parce que am naa sama situ bopp yow gis nga loolu sax comprendre amaana li ci bëri waaw ci foofu noonu lañ koy xamee dugg YouTube rek tàppe Latir Mbaye mhm. bés à abonné xaar mhm. waaw di nga fa gis yu bëree bëri mais mënoon ci mënoon na ci may dara laataa ngay kii loo xam ni da ma koy may man waaw yow léegi lan nga lan bëgg ma may la ko man benn loo xam ne dund nga ko biir kaso mu metti la nga xam lii kat metti na la te waroo ko dund mhm. waaw man li ma dund biir kaso mu metti ma ma remarqué ko mooy maanaam euh, sur peuple bi surcharge kaso bi kaso bi nu ñu si chargé waaw benn jour euh, maanaam du ma ne benn jour sax maanaam xam nga neexul c'est que boo dee kàpp yow doo bokk ci kàpp kii paquetage yi. boo dee kàpp boo dee kàpp surtout nga yàgg fa. da ngay dem ba maanaam dañ lay defal yow sa mergaan yow kese nga mat laa mergaan yooyu. Mm-hmm. waaw pour yow. comprendre mm-hmm. waaw foog nga nekk kàppo pour pour pour mën a am loolu noonu. en voilà léegi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw. waaye ñooñu ñëpp bu ñu ñëwee waxuma la toog dañuy taxaw ba fajar. est-ce que. barki Seydina Mohamed taxaw ba fajar am na ñoo xam te trois mois dañ koy taxaw ba fajar. 3 mois mois mais obligatoire fan lay tëdd amul tëdd. parce que néegu exemplaire kon kon kon kon def naa def naa 10 def naa 9 def naa chambre 14 man. man moo gën a tar. mais fu gën a tar fépp a tar. lu waa 10 di jooy moom la waa 11 di jooy li waa 11 di jooy pas yi nekk chambre une moom la ñuy jooy muy lan ñibbi. gars yi waxatuñu tar-tar bi de parce que niis nañ ko dañoo dem ba dañ koo niis. ñibbi quoi. waaw ñoom problème bi mooy maanaam seen liberté. Mhm. xoolal comme temps yi lu ñu wax longue détention desetul ci kaso bi mais c' est archi faux ñoom Modou Diabaté 2013 ba léegi ñu ngi fa. ba léegi ñu ngi si ba léegi ñu ngi fa ñoom Modou Diabaté waaw ay cinq personnes lañu ñoom ñu ngi fa dañoo bokk benn problème mais Modou Diabaté mooy seen grand frère mu ngi chambre 20 2013 ba léegi mu ngi fa. ñu ngi naan seen dossier moo réer ñu ngi naan li ñu ngi naan laa. 9 ans de prison. mais mais oui 9 ans. bientôt 10 ans ba léegi ñu ngi fa. bientôt 10 ñoom moo Diabaté. ku weddi li may wax demal ba Sambour 20 100 mètres carrés prison Rebeuss nga nga laajte Sambour moo du jabaate ak kiyom mhm. ñu ñu ngi jàppandoo ay booy la yu dëkk ginnaaw raay. Mhm. waaw ay booy dawal ko sareet gaa yi jàpp leen pour jeexal seen enquête moo waral loolu noonu. Mhm. mais booy ñu ngi fa ba léegi te gars yi war nañ leen xam nga waaw. Euh, euh, Latir loo jotee woon ak badaraloo Lo. waaw lu ma jotee ak Badara euh, du ma ne lu ma jotee ak Badara Lo avant tout dañ koy jaale ay mbokkam fu mu jëm gënal ko fu mu jógee suñu borom yërëm ko. sara ay yéexam si biir suuf xaare ko àjjana. defal ko mbooloo mu jullit. damay dégg saa ma dajeeg journaliste daf may laaj Latir lan nga lan sa problème Badara Lo nu mu demee man su ma xamoon ni Badara la. duma def jëfiñ jooju noonu ma def. ok mais pour man benn euh, tubaab bu ànd ak gidd la xam nga guide. man loolu laa waaw parce que parce que jour boobu noonu mu ngi àndoon ak jabaram Naza. Naza Naza mooy jabaru kiyom bi naaru libanais bi. Mhm. naaru libanais bi mhm. libanais mooy Nazar. ñu ngi dëkk euh, fan ginnaaw hôpital Fann maison Blanche. ok waaw euh, maanaam comme ni ma la ko waxee rek. erreur de jeunesse la woon. Mhm. mais man ba may def jëf jooju noonu xaw moo woon ne Badara Lo moo nekk ci oto bi. Mhm. ko dégg ma. Mhm. mais man tolloon naa foo xamante ne boobu nag xalelaa li may wax bëgguma sax jeunesse bi di ko dégg sax di ci am sax luñ ciy jàngat. man li may wax damay bëgg ku koy dégg ku ne na nga wàññeeku. parce que man voix bi ma nekkoon di ko dund baaxul existé wul. baaxul dund dëmm la. maanaam milieu banditisme dund dëmm la. parce que da ngay xool yéen yéenay dem jëfe di jeu de yéenay toog yéenay kartab xaalis yéenay toog yéenay mandiwoo yéenay xeexaat encore seen biir. Mhm. ban Sénégal lañ nekk. yéenay gaañante seen biir. kon baaxul baaxul pour muy leer léegi dañuy ñëwaat ci affaire cadre mhm. mooy comme li ma la wax rek. Mhm. ba may def loolu noonu amaana euh, xaw ma ni Badara la. ànd naag jabaram. yor benn Pajero 4x4. ma baraake pa Pajero bi. ñëw ba ci moom teg ko arme. mu dégg daaj moom it lesa deux ma def lu may def ba ma ko wanee ginnaaw pistolet la ma dóor barki leeru axuraan ba ma déggee tël nangootuma taxaw foofu noonu di déggaat di déggaat tël dama xam te ne loolu bal la ma daw mu ansonné ko téela téela téela ba ni may jàddee sama koñ mu teg ma mu ñëw fekk amoon na benn maire bu doon jaay foofu noonu supp ci bopp koñ bi mu ñëw ci maire bi la ko pistolet ne ko di mu wax ne ñooy jaar fii saa bu ñu agressé si stade ñan ñooy jaar fi maire bi ne ko ñoom Latir Mbaye la encore ñoom Latir mbay encore maire bi ne ko kan mooy Latir Mbaye Badara Lo ni ko kan mooy kan mooy Latir Mbaye maire bi ci boppam ne ko moo ci gën a gàtt mooy cinq chef mu ne ko kooku laa soxla maire bi joxoñ ko suñu kër mu dem suñu kër mais fekk ñu ma fa maanaam léegi affaire bi léegi mu ngi ci man lekku na ci troisième jour ba ñu ñëw sama koñ indi fa quatre oto ba mu fees dell ak ay nit ay doomam ak ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba rumeur di daw. kenn ku nekk yor pistolet. Ah, waaw xam nga si lañ may jàpp ci koñ bi maag benn xarit yóbbu ñu tëli kàndaa mooy fi ñu fi ñu fi ñu doon jàngee dawal ñu ne dañ may rey. waaw xoolal fii sama bopp bi lii toj nii yëpp ay taatu pistolet lañ ma doon dóor. ok ay taatu pistolet def nii. ok parce que ñoom nee nañu pour lan. man ñoom seen papa man ma koy agressé. waaw ñun waaw pour lan may agressé seen papa kërëb kërëb nangam sangam xaw ma gaañ mais ñoom li ñu may dóor yëpp maa ngi leen naan du man est ce que jaawale woo leen ma. parce que instant yi bu ñu xamoon ni man la ñoom lu ñu ma def mën nañ ma doggalee pare sànni xam nga ma dëgër ni si du man lu ñu mënta def man leen du man am seen mag du ma ko fàttee raq raq raq kii sax laay wax mbéykan loo ci boppam mbay moom en personne moo nekk moom moom mention spéciale ku baax la. Mhm. moom it yàlla na yàlla wéral ay cëram guddal fanam. Mhm. sàmbal ko njaboot gi. Mhm. ci barke Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam mbay en personne moo leen ne def leen daan booy bi suba léegi ñu ngi koy dóor te nangul ni mooy Latir Mbaye kaa leen koy yóbbu ci paa bi. bu paa bi nee moom la. mu dal ko maam Cheikh ki nekkoon États-Unis. maam Cheikh waa effectivement ñu dajale ma yóbbu ma ci paa bi. ba ma dugalee ci oto bi ma ñëw ba maison balance ñu gaare paa yi bu mu ñëwee mbay wàcc léegi ma war a wàcc ñu ne ma xaaral ma nekk ci biir ñoom ñu dugg wax ak paa bi paa bi génn paa bi ba ma xoolee ma xool ko boobu man maa ngi doon def sàmbalaa di xool ndax xàmmee na ma wala xàmmeewu ma léegi dañuy ñëwaat encore léegi gis nga paa yi ba ma nee nii yërndu pour mu di jéem a jaay feeru muus moo ma def lii lii ne yaa ngi koy gis. est ah ok amoon na moom benn jaaru axika bu muy tax. taabada amoon na axir muy taq këng la ma def lii teppeeku ma daw naaw ci tànk ne ko billaahi su ma xamoon ne yow la du ma laal sa alal ba da baal ma baal ma dimbali ma rek ngir yàlla bu ma rey xaw ma woon ne yow yaay badaraloo mu ne wax na dëgg effectivement xamuma xam nga léegi jékki-jékki ne lan ñoom mbay pour nañ ma yóbbu yaraax comprendre nga ma laxasu si tànk bi ne ko papa ñii boo ma bàyyi ñoom dañ may rey dimbali ma rek suba man naa mu ne ma déedéet yow kañ foog nga fanaan Latir fekk jour vendredi la. moo war fa fanaan samedi dimanche. lu tax ma fay fanaan mooy euh, maanaam chaîne or bi. daf ma ne foo ko jaayee ma wax ko ko mu ne ma carrément du ma la yóbbu police du ma la yóbbu dara wax ma fan nga jaayee chaîne bi ma dem récupérer sama chaîne te du ma la dóor du ma la yóbbu police nga jël ci moom chaîne or. oui benn lengo ci Nazar ni ba bi. Mm. waaw lengo la taxoon. ma dagg ko yóbbu ko. jaay ko waaw jaay ko. ñaar jaay waaw jaay naa ko rek dañ maa nax nag jaay naa ko et puis et puis et paa bi champion la. déjà paa Bada. champion la parce que après ba mu nee ñoom mbay buñ ma laal xam nga dama toog ci wetam quoi. mu ne ma est-ce que xam nga ni ba nga ma tiimalee paaka bi defuma dara est que xam nga lan laa bëggoon ma ne ko loo bëggoon papa mu ne ma dama la doon photo ci bët est que xam nga luy photo ci bët. Hmm. xàmmee la ba fookar fu mu la romb mu di waajaa merci si moom laa déggee loolu mhm. ndaanaan la kon ndaanaan waaw ah, kon fu mu nekk yàlla na ko gënal fu mu jógee amiin suñu borom gën a waaw seral suuf ci kawam après moom jëli na chaîne bi bañ ko jëli après dañ ko jëli nee naa la am na bagage yoo xamante ni xam nga dañuy bref rek <laughs> parce que xajul fii parce que man it dama yor sama yëfi bopp waaw muy sama YouTube uh-huh. waaw uh-huh. waaw bàyyi ñu bref ko rek mosal la nag. duñ la wax lépp waaw ayca une fois que nous sommes sur Dakarnet comme ni ngeen koy baaxoo à chaque fois bu ñu tàmbalee ngeen daal di àndandoo tey nag émission bi yaakaar naa ni émission bi spéciale la boo xam ni émission bu bu bu bu jéggi dayoo la boo xam ni Sénégalais yi kat bëggoon nañu xam lii xam naa ni moom sax dina jaaxle eh, question yi ma koy posé fu mu ko jëlee. waaye nii rek la képp kuñ fiy dalal rek bu soobee yàlla di leen def ci yow ay investigation ba nga xam ni mun la laajee rek di am am fi wax même boo bëggul woon wax laatir yaakaar naa ni waxtu bi mi ngi xoj dañ lay bàyyi laataa ñu lay bàyyi nga wax lu ban message dana sa wayjur bu jigéen wax mu touché la lool ci sa dund gi yëpp lan la la a wax ba nga xam ni boo ko xalaatee mën na tuur say rangooñ lan la la mas a wax loo xam ni touché na la ci xol waaw sama yaay de man li ma mosoo bu mu touché ma moom franchement parle loolu dafa nekk ci man ba léegi quoi waaw parce que ba ma demee ba sentir ni man mag laa mesure laa ma toog suma yaay euh, ma laaj ko ma ne ko waaye yaay yaay lan nga mën a mën a jotee sama papa bay tàggoog moom moom ci boppam mu ne ma Ablaye loolu duma la ko wax mukk bis bu ma la ko waxee nga bàyyi sa papa est-ce que dégg man ba ma ko laajee waa papa lan moo tax nga tàggoog sama yaay daf ma ne loolu yàllaa ko dogal. Mhm. doy na waar. doy na waar. ëpp na waar. Mhm. man maanaam man man man man mun naa man euh, ni ñu ko waxatee waaye man man dama sonn ci sama ci sama carrière quoi. waaye mhm. dama sonn dama sonn dama sonn dama sonn dama dund lu tar. parce que lii yëpp may dund maanaam sa baab man da doon jël di ma dénkaane maanaam bu waree liggéey daf may dénkaane te dénkaane boobu may dénkaane du arrangement am du sama arrangement du arrangement sama yaay amaana tey looloo tax tey mu deme nii parce que ku sañoon sa doom kenn du ko gën. ku sañoon kenn du gën kenn kenn kenn du gën sa papa. ku sañoon kenn du gën sa yaay. mais maanaam damay lancer waat encore ñi nga xamante ne ñooy jeunesse bi ñuy bàyyiwaat xel di delloosiwaat seen xel di xam ni yaay foor na papa foor na waaw maanaam ñuy dégg ndigal di bàyyi tere lu ko moy dañuy pëtax oui parce que ñoom fi ñu visé muy wàllu maanaam euh, banditisme amul sens amul sens dee bu ñaaw wala kaso bu bëri nañuy sóoraale leen diw dee nañ lu ko rey ñu ne da doon jël alalu jàmbur. c'est honte. dafa ñaaw. man su ma juróon sama doom tey mu doon jël alalu jàmbur ba dee duma ko dajal. ndeysaan non du ko dajal. parce que ñii ñëw gan yii ñëw lan lañ lan nga leen di wax. te gis nga te boo fenee yàq suñu borom la. fële ka nga wax dëgg bi. diw da doon sàcc dañu rey ko xam nga loolu dafa ñaaw ci làmmiñ. kon encore booy yi nañuy bàyyi xel loolu te xam ne léegi ñëpp a soxor ñëpp a baax ñëpp a bon ku mu neex sol yëre soxor Sénégal kenn nekkatul tàppet parce que parce que lu tax kenn nekkatul tàppet maanaam dafa am loo xamante ni dañ dañ ko niis ay génne jaaci ci mbedd génne paaka ci mbedd ay jamante yooyu Sénégal léegi niis nañ ko ba tax na léegi lépp looy def naan da génne génnee paaka pour ñu ragal la nax nga sa bopp nax nga sa bopp way milieu baaxul au revoir au milieu wax band jeex na dee na doon Baye Fall rek a wóor rek a wóor doon doon Baye Fall rek a wóor. Mm. Eh, jëfe ndigal bàyyi tere rek a mm-hmm. eh, dañuy daal di moom waaye cofeel gi papam am ci moom eh, faw ñu xaw ko ci dugal tuuti rek ndaxte bërki démb rek yaakaar naa ni am nga tawat bu ndaw bu la xawoon a dal. Mm-hmm. paa waaw guddi gi dafa bàyyi këram ñëw fanaanoo yow. waaw yow la ka moo <laughs> loolu. dëgg la. paa bi dafa bàyyi këram ñëw fanaanoo ak yow. dëgg donc gi am ci sa diggante ak sa waajur hmm. ko mën a noo a a waaw mooy li ma la wax rek xam nga kenn du jur sa doom bañ ko. déedéet jikkoom ngay bañ. Mm-hmm. sa doom mm-hmm. doo ko bañ de mais jikko nga ngay bañ. Mm-hmm. mais am na loo xamante ne tey boo demee li nga daan gis sa doom. àdduna di dox ba gisatoo ko sa doom cofeel bi day gën a yaatu te da nga koy bëgg koy bëgg a xëcc sa bopp sam papa mag la mu ngi ñaata presque li moom quatre-vingts ans car macha allah yal na ko yàlla gën a wéral ay cëram papa dundal ba borom Touba Mbacke waaw waaw bëgg naa nag moom balaa moo sax waa balaa suñu borom yàlla ma suñu borom sax njëkk jël ko sam pap mais tey ji man waaw man tey ji bëgg naa man sam papa wala sama yaay tey ji balaa yàlla di leen jël ñoom benn point bu tuuti boo xamante ni man defal naa leen ko. incha allahu taala dina am gaa yi ak lay seetaan. même mm. euh, dinañ ci jàpp bu baax a baax euh, ngir Latir Mbaye am lu mu mën a defal way juróom ndaxte nit ki am loolu lu sa way jur. Mm. képp koo mën a defal lu mu baax baax yàqu nga ko ndaxte balaa ngay defal kenn da koy jiital. ci say wayjur na fonkat wayjur yi bu baax a baax. su ma neexoon di dundu leneen. waaw su ma neexoon. Mm-hmm. di dund leneen xale bu góor laa. Mm-hmm. te milieu bi reconnaître na ma. Mm-hmm. Pikine yi ba Casamance xam nañu kan mooy Latir Mbaye mooy waaw ah, parce que dañ doon ànd li may wax nii xam nga jeunesse bi passé languñu terrain man dama lang terrain lang ñëbët mhm. déggoo ma de daan génn Ndakaaru di dem voilà dama lang terrain man jamonoy waga man dama lang terrain nee naa la sama parcours man xajul sax si documentaire ok xaju fa ok parce que sëñ Fallou xaju fa xam naa ni dinañ ñëw ak yow def documentaire boo ñu mënee may loolu loolu du dara après nga wax ak rasul rek. waaw jeex na euh, di di di siyaare bu baax a baax rasul sama waa ji moom mi nga xam ni jàpp na ci yëf yi bu baax a baax ndaxte bu yëf yi yembee moom Mouhamad euh, nekk foofee ci Italie. Mm. Euh, waaw bitim réew. jàpp na ci yëf yi bu baax man ngay lay bu baax a baax a baax di la kontaanee di wax ni jërëjëf encore une fois aw ma sa fay ndaxte lii bu yembee ci yow laa ko jaaree te yow it nga yombal ko lool laxasoo si benn yoon lu tàng mais également. Euh, di leen jox rendez-vous 19 décembre foofee nga xam ne moo di théâtre national Daniel Sorano ak Chamboulé euh, war ci ànd ak Chérif Karafal Zikroula ñu daal di àndandoo foofee ca euh, théâtre national Daniel Sorano fas yéene tagg fa turu yàlla yi fas yéene fa yëkkati turu yàlla yi xam naa ni sax moom lattir ndeysaan dina ko teewee bu baax baax dañ koy indil invitation ba ci biir kër gi mu daal di ko teewee lattir lan ngay tàggoon toog ñi nga xam ne ñoo lay seetaan muy téléspectateurs yi. waaw ni waaw ni may tàggatoo encore rek. mooy di tàllalaat ñëpp loxo mm-hmm. ñu jëggal ma mm-hmm. ñu baal maax mm-hmm. ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam te xam ne man li ma nekkee woon du dëgg du yoon mais amaana suñu borom moo nangu loolu noonu kon su ma dee gor dama naan carrément maa ngi jéggalu senegal di baalu Sénégal di tàllal loxo tamit senegal di leen wax ni ba tey jàpp ma ci dara te awma dara ma si jàppalee ku ne ma jël. Mhm. parce que am bëri na ay ay ay ay ay autorité mhm. yu nekk Grand Dakar. Mhm. ku ci nekk sol naa sa daal dem. yóbbul la sama photocopie quarante. ne leen liggéey laa bëgg. mais bu ma ñëwee ba léegi kenn amul amul amul kenn ku mu liggéey. donc yaakaar naa ni par rapport ci émission bi eh, bu ñu ko seetaanee dinañ la jàppale bu baax a baax ndaxte loolu lañ ci jublu képp koo xam ne rek da ngay defal yàlla te yàlla tax nga jàppale ko moom mii suñu grand bi bu baax a baax ndax dafa am ci lu mu woon jóge fa am ci lu mu fa seen dugg ngir jëlee ña fa ne. donc yaakaar naa nag loolu foo mu am lu mu jàpp wala foo mu am benn moyen bi pour mën ko yeggale donc yaakaar naa ni dinañ si jàpp waaw mais mais tamit damay tàllalaat kii ni ñu ko xotee encore tamit man chaque jour rek mooy li ma la mm-hmm. loxo ki nga xamante ne mooy suñu njiitu réew mi di Macky sàll mm-hmm. di grand monsieur mm-hmm. di nuyuwaale ki nga xamante ne mooy soxnaam di madame Faye sàll grande daam car macha allah yal na yàlla wéral seen cër guddal seen fan. amiin amiin mais dama leen di tàllal loxo pour ñoom ñuy bàyyi xel. ñi nekk ci biir ñi nekk ci biir kaso yi. tar na metti na te foo ko nattu weesu na foofu. Mm-hmm, mm-hmm. te bu leen fàttee cent mètres ëpp na siècle. Mm-hmm. am déet ëpp na siècle. ba pare ñu ngi jëlaat encore di ko tabaxaat encore ci kawam ay néeg. est-ce que c'est sûr. kon damay lancer waat encore message alerte. boo xamante ni tey Latir mbay moo ko joxe fii nii fii la xewee pour ñuy sóoraale loolu noonu cent mètres casé date bi passé na ñu ngi tabaxaat encore ay néeg ci kaw pour ay détenus di fa dugg est-ce que kon ñooñu pareeguñu pareeguñu non pareeguñu pour toj cent mètres carrés pareeguñu pour defar cent mètres carrés kon ñoom ñu ngi xool cent mètres carrés muy gën a bëree nit mhm. parce que le fait que ñu jël bâtiment boo xamante ni man la su maay passé na ëpp na ay siècle mhm. nga naan dañ fay def ay néeg pour les prisonniers ñu metti tar na metti na nañuy sóoraale loolu mhm. ba ci courant bi courant bi nga xamante ne moom la ñu installé kaso bi yëpp. Mhm. dafa am benn jelmaan boo xam dañu ko tëjoon vingt ans. Mhm. ñu koy wax asantaal. Mhm. électricien la woon. kooku moo installé woon courant bi nekk ci kaso bi yëpp. ba ci affaire crime boobu nga doon dégg euh, Sambour 11 affaire courant bi. courant bi moo pété woon parce que jelmaan na ko defar. kon état encore nañuy bàyyi xel loolu noonu. lii di tabax bi jelmaani la. courant bi jelmaani la. loolu tamit neew delmaan lu mu defar baaxul de mhm. mais bëgg naa bépp liggéey boo xamante ni dañ koy def ci biir kaso ay bakkan di fa nekk mhm. man la ci waaye na doon ñoo xamante ni ay cadre nañu yor seen këyit ñu jox leen liggéey boobu noonu muy courant muy wàllum maçon acca incha allahu taala yaakaar naa ni dégg nañ la ci euh, message bu am solo bi nga lancé fii nag la xewe woon fii ci Dakar Net laataa ñuy tàggoo rek di siyaare bu baax ki nga xam ni moo di Blindé Fall euh, ca Fass maa ngi lay kontaane bu baax a baax euh, Bill maa ngi lay siyaare euh, mais tey li ñu ñu mel nii Euh, Zal Fay Jeune moo fi jaar euh, Zal Fay Jeune nekk sa Colobane euh, numéro téléphone bi di 78 395 16 98 ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax 395 16 98 bu ngeen fa demee rek am na ay arrivage yu bees tàq yoo xam ne indi na leen ko yéen sénégalais yi encore une fois di leen jaajëfal bu baax ci àndandoo bi ak lépp lu muy daal doxe fii ci Dakarnet di leen joxaat rendez-vous fii ci biir Dakarnet ak beneen daanaan ak beneen ponkal ak beneen waxtaan merci beaucoup à tous et tous encore une fois merci beaucoup tey amuñu seen fay di siyaare bu baax ki nga xam ne moo di moo nekk ci régie bi maa Malick nekk ci son bi eh, kontaan na leen bu baax bu kunta Père Jigal surtout ndax bu ma tàbbee ci kër gisee c'est grâce à vous Père Jigal maa ngi lay kontaane maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup encore une fois à la prochaine